وتقطع عليك صلاة الله ثم سلام فإن فؤادي عندك الدار أجمع عليك صلاة الله ثم سلام فعيش بدون وقدر وقدر صيام naka kattanab koor arbaatum am daadi nekk na si ñeent muddu bi muddi rasulillah sallallahu alayhi wa mu ne boo ko xamul mooy muddu sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi mu ne buñ koy génnee nag mu ne day nekk ñeent guuf yoo xamante ne borom guddut lool ba jéggi dayoo wante gàttut lool ba jéggi dayoo du ko ngëpp mu ne noonu la ko sayyiduna Muhammad sallallahu doon génnee bu ñu ko calculer mooy deux mille deux kilos cinq nga mu ne bésu bii day nekk waxtu bi ñu koy génnee nag mooy ba euh, fajar bi xare ba jant bi génn mu ne dinañ ko jox ku ñuy tuddee faqir wa tusqitu bi muddi zamaniha fi xaqi musirin ki nga xamante ne yàlla def na na mu jàppandi ci moom dina ko génnee wala wa tasqutu fii moxsirin mu ne su boobaa nag fee dafa waxoon ne wala tasqutu bi mu di zamaniha fi xaqil musir ki ko war am ko da koy génne ki ko amul nag wàcce na ko mu ne bésu tey bi mu ne sul naa nañ e, feeñal taataaru ni gëttu ak ay yére mu ne doonte sax dañuy génne wante buñ bàyyi bésu tey bii ne da ngay dëdd dëddu àdduna ba tax doo solu wala doo am xet bu neex ngir dem si julleekaay bi mu ne sax sopp nañ si bu amee gawar muy fas muy daaba muy oto nañ ko yéeg ngir taar taaru lislaam tey mu ne nekk lu ñu sib li annahu nekk moom rinatun taar la wa haada yowmuha mu ne lii mooy bésu tey bi wa kaana sallallahu alayhi mu ne bi sallallahu alayhi daawul génn dem si julleekaay bi si weer koor lu du ne dina génn at laata mu génn dina lekk tàndarma ñaar ba ñett da koy def lu ñuy tuddee euh, mu tóol mu ne war na si bu ñuy julli iid ni tabaski mbala korite ñu jullee ko si biti ngir lan yërmandeeb suñu borom du nekk lu ñu muur buñ jullee wonte fajar si biir jumaa ji buñ waree julli en bii tey dañuy génn foo xamante ne dafa ayere ñu ne ngir lan ngir yërmande bi yàlla ni ngelaw li ëppee yërmande bi yàlla di ëppee noonu mu ne foofu afdalu wa awla bal huwa almutaayinu mu ne nekk na ba su ndimbal mu ne sallallahu alayhi wa we nit ki boo wooree ba pare dañ koy jël aj ko si diggante asamaan buñ ko aje mu ne lenn moo koy yéegalaat muy ñu joxe asakaab koor muy muddu koor yi kon ñu góor góorlu mu ne weer wi ñaari yàlla day feeñ di xool jaamam yi ngir wàcce si ñoom aw yërmande mu ne kon loolu moo taxoon mu ne fa ubrizo mina manazili tulhaqukum rahmata rahmatin wala baasa bi xuróoji nissa mu ne seyduna muhammad sallallahu alayhi wasallam sax bés bi daan na génn jigéen ñi ak ñi nga xamante ne sax dañuy muuru ni dañuy tënj mbaa jigéen ñi am deret mooy baaxu jigéen seyduna muhammad da leen doon génne ngir ñu dajeek yërmande suñu borom mu ne bésu yiw bés bu tedd la mu ne sadaqatu fi misli hada al yawm mu ne sallallahu alayhi wa sallam daana wax ne bés bii nañuy génnee sarax mu ne yéen jigéenu julit ñi bu leen mukk xeeb seen mbokku jigéen ñi lu du ne da leen jox sax benn pooj yàpp boo xamante ne dañ ko lakk sallallahu alayhi moo ko wax mu ne taqu naara wala bi shaqi tamratin nañu wottandeku safara donte benn tàndarama la sax ñu jox joxaw nit mu ne loolu mooy di tey de sallallahu alayhi wa wax na ne bépp nit moo ngi si eh, kullu imri'in fi zili sadaqati sadaqatihi yawmal qiyamati nit ki moo ngi si keppaaru saraxam yawmal qiyam ba ñuy tàqale mbir yi wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bi sabri ba ñuy dénkante dëgg ak muñ wa taqullaa nañ ragal yàlla mu ne ndax ragal yàlla googu waalamu na ngeen xam ne annakum naka yéen mulaaquhu way dajeeg yàlla ngeen de wa bashiral muminin ñu bégal jullit ñi waskurullah kathiran mu ne nañ ko tudd lu bëri bésu tey bii de wa qaala jalla min qaa'ilin fadkuruni adkurukum yàlla nee na booleel ma fàttaliku ma fàttaliku leen fàttaliku yàlla si bi ngay julli fàttaliku yàlla si sa bëgg-bëgg yi fàttaliku yàlla si sa namm-namm yi fàttaliku yàlla ba bi ngay def sax lu xaraam nga fàttaliku yàlla kon doo ko def mu ne kon saa su nekk rek ittaqullaay su kunte fu ñu mun a nekk rek buy ñaar buy ñett nañ ci ragal yàlla mbir yëpp mu ngi ci loxo yàlla bu njëkkam di suñu dina yàlla nee na mbir yi man maa ko yore waxtu wa heure ba bu jotee rek ma jox ko su ma la ko joxee si jamono jooju day fekk mu gën si yow kullu yawmin huwa fi sha'ni jamono ju nekk rek at waxtu wu ne ni yàlla di jëlee seddale aw jaamam ñoo ngi ñaan yàlla suñu Sénégal yan si yàlla def jàmm yàlla na yàlla yokku ñu sutura yàlla ñu yàlla yokku barke di ñaanat yàlla ni dund gi seere ñëpp ñoo ngi koy tawat ñoo ngi ñaan ñi nga xamante ne ñoom la yàlla def ñu doon daagaan baatu askan bi yàlla jox leen ko ñoo ngi leen di wax ne askan bi ñoo leen di xaar si loolu ñu ngi leen di xaar si yërmande si doomu aadama yi yàlla nee na yéen doomu aadama yi boo leen amee si sama jaami yërmande yéen ñi féetoo kaw man maam si yéen aw yërmande ñoo ngi ñaan yàlla yërmande googu yàlla na ko yàlla def si xeetu Seydina Muhammad gi yalla yàlla tappe xool yëpp ñu nekk benn yàlla ñu yàlla may Sénégalu Cheikh Ahmed Bamba yàlla ñu yàlla may Sénégalu Sidi Hadji ñu yàlla may Sénégalu bu at bu kunta mam haaji abdullah cheikh ibrahim at mawlana cheikh bay baram soxna mooy jàmm guñ jàmmoo yal nañu ko suñu borom defal yaa rabbi allahuma salli ala sayyidina muhammadin alfaati lima uliq walqaatimi lima sabaq nasiri alxaq bilxaqi والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم رب انزلني منزل مباركا وانت خير منزلين yaa rabbal ibaad gaafiru zunuubi wa qaabila tawba li taqbal tawbi min teeba jituka ilaahi taa'iban wa taaliban wa qaadiya wa ayiba bi munzilin mubaarakin tunziluni wa fawna jamii man qassadani ajir fiyuudan amrin wa arzaaqi li zumrati wa xadib axlaaqi naarakum aswaaqa sumihna fa daarik annahum aksara minana waala libaad min aqdaamu fa tasmilu fi akaamu لو من لينا الحديدا لمن أرات وارفع القيودا نراهم في بسط ورقاء أولي الديانة ما إلى لاي يمنا وصحة وبزدا زائدا سوقا لأحباب وقد عبدا من طيبتي أزيل الظواهر وأنت تدري باتني وظاهري نالمنا من قد أتاني أولا آخرا يا آخرا يا أولا والد أن يحبى بكل ضيري وقد أتاه منك كل عيري لا ضرهم تنابذباني إذ كل ما يروني نفاني حيث مكفوني عمي ونجنا من غضبي ونقمي مصدقين متصدقين الصائمين دراذين باع نفوسهم وأولا كالمؤمن حب الله وأولا أجب أيا رب سر ذاتي وسر أسماء بصفاتي رب أيا رب فاتمي في ما قد قصرت أن تدمني لا كما عجبت كل عبد الصلاة فيما مدى فحقق أملا أنت الذي ترزق ما تشاء متى تشاء كما تشاء ما شاء وأنت أكرم وأنت أرحم وأنت أجود وأنت أعلم أنت غني قادر المريد ولا يكون غير ما تريد نزل لطف سمعت بك في إذ أنك حي ودود الكافي تقلب الأعيان في أعيان وطرف أقوام في أزمان خير لي صحبا فضلا وخير لي من كل شيء من كل شيء غير وكن لي يا ربي بالهادي والصحب هادي فتك بكل شيء هادي رب الأمين آتي بالأمين كل مطابل كل هيني آتي وبيدا بياتا واجلا إبي جابي واجلا لما تا لما تا لما تعودت أراني كل مطابي وإني فطو ما قأت غائبا من ربي بل كل ما أبت سكرت وبي نعمه في الظاهر والباطن أصب الغيب والمواتن ولا التكارد وذاك أذام موهبة وهابا من يكرم لدى حوالي طيبة فتطرد كل الشرور أبدا وسرمدا لدى حوالي إفريقيا فتطرد كل الشرور أبدا وسرمدا لدى حوالي سنغال فتطرد كل الشرور أبدا وسرمدا لدى حواليا فتدردا كل شرود أبدا وسرمدا لدى حواليا فتكا فتدردا كل شرود أبدا وسرمدا لدى حواليا مدينة بلي فتدردا كل شرور أبدا وسرمدا يا ربي صل على المختار وآله والسبع أغيار نعم استفى المصطفى ونم أزات الغام اللهم صل على سيدنا الخاتم لما سبقنا سباق الأقوال إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر القدر عظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبقنا سباق الأقوال إلى صراطك المستقيم وعلى بدر وبار عظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سمعنا سلام الحق ولا إلى صراطك المستقيم ولا آل حق القاري عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون wassalaamu ala mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin jërëjëf nag mbokk yi ñi nga xamante ne ni yéen ay seetaan nag eh, Sine TV ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax eh, dellusiwaat nañu eh, tey ci ni ko Sine TV defee nag saa su nekk ci bés yu mel nii tey nag ku nekk umpalewul na tey moom mooy bésu korité ñu julli fi nga xamante ne ni moom moo di Medinatul Balle ay kilifa yu bëree bëri teew fi ñi nga xamante ne ñoo ñoo di askanu Fatick ñu bëri teew fi ñi may samay koor euh, monsieur may samay koor Diouf directeur général Safru SA maa ngi lay nuyu. ñu lay fay bu baax di leen ndokkeel ci bés bi euh, ñëw fi suñu tànku bopp waaye également ñëw fi tànku euh, mairie bu Fatick représenté fi la commune de Fatick waaw di ndokkeel bu baax jullit yëpp umma islamique bi yëpp Sénégal adduna bi yëpp mais particulièrement fii ci Fatick di si jiital sunu imam a soxna. di kon ndokkeel bu baax di baalu ñëpp ak di baal ñëpp àq di ñaan yàlla suñu borom ñu yàgg koy teewee mu ànd bànneex ak tawféex di ñaan yàlla lépp lu ñu jaamu yàlla ci koor gi rek yàlla nangul ñu ko e, ñi nga xamante ne également yàlla ñoom la jox réew mi ñu ñaan leen jàmm lépp lu ñu bëgg yaakaar ko mu nekk njiglaay askan wi yàlla def ko. du conseil waaw lu ñu lu ñu diggee nañ ko nañ ci def li mën rek xam nga àdduna moom yàlla moo moo mooy mooy sottil donc ñoom wax nee nañ dinañ def beaucoup de rupture loo xamante ne day jur njëriñ ci askan wi nañ ci nañ ci was lu àq rek li am solo rek mooy bu ñu xaajaale dëkk bi bu ñu andi division lépp nañ ko lal ci jàmm ak salaam waa parce que réew mi ñoo ko bokk te mënuñ koo mënuñ koo séddoo. te koo song aussi bëgg koo tuutal mu jàkkaarloog yow te loolu bu baax coow rek lay jur. voilà réew mi yàgg nañ ko yàgg na nekk ci dëkk bi dangay liggéey pare sa moroom jël liggéey donc lépp nañ ko def si jàmm ak salaam rek. Euh, Sénégal ñun dañuy baax euh, tey pare euh, naat. mais ku nekk kay réew. sa réew dugal la école nga jàng am diplôme màgg li ngay ñaan yàlla mooy nga servir sa dëkk voilà donc euh, euh, réew mi nag ku nekk mën nga ko servir façon bu nekk ñun ñu ngi fi Fatick ay euh, adjoint au maire li ñuy dox yëpp pour askan wi la au niveau national également responsabilité ñu am foofu noonu ba ba muy jeex liggéeyal askan wi la donc loolu moom lu lu lu du dañ tant que ñu ngi am bakkan rek ak tan fekkee donc dañuy liggéey pour suñu askan ci képp ku ñu oo ci liggéey aussi. mbokk yi nag jërë ngeen jëf nag yéen ñi nga xamante ne yéen seetaan nag Sen TV ñi ngi fi nga xamante ne ni ñoom ñoo ci euh, Médinatoul Balle Médinatoul Balle nag buñ koy wax nag. Euh, nekk na bërëb boo xamante ne ni bërëbu diine la bërëbu euh, Maulana Cheikh euh, Baye Barham Soxna nekk tamit koo xamante ne ni dafa liggéey lislaam nekk koo xamante ne ni tey ndaw yu bëree bëri bëri moom moo leen defar fi ngeen gis ni bërëb la boo xamante ne ni rek mu ñuy wax diine ci Fatick te nag tudduñ ko yàlla nañu yàlla tas ci leeram mu di Maulana Cheikh Baye Barham Soxna ki nga xamante ne nii nag lépp lu xamante ne nii nag rafet na ci diine moom moo ko jëlil indil ko waa Fatick ba ndaw yu bëri bëri daal di ciy defaru tey doomam ji nga xamante ne nii moom moo di euh, sëñ as soxna teg nag tànkam fi baayam tegoon tànkam di mottali liggéey bu am solo bi nga xamante ne nii tey baayam mi ngi ko doon liggéey euh, fii ci euh, Fatick fii ci natul bale ñu ñëw ñëw nag nara a fekkee li nga xamante ni moom moo di euh, julli korité bi léegi ni ci kanam tuuti nag dañ euh, seetaan nag julli ji waaye tam nag xool yenn autorité yi nga xamante ne ni jot nañ fee teew ñoom ñoom ñoom itam ñu taal leen suñu micro kenn ku ci nekk nag dal di wax nag li nga xamante ne ni moom moo di solo bés bi salaatu llahi ثم السلام فإن فؤادي عندك الدار أجمع عليك صلاة الله ثم سلام فعيش بدون الحب فيك